boko ko pacifiquement pacifiquement ah. il y aura des pertes amna na ñoo xamante ne fan la ñuy jaaree bàyyi seen liggéey comme Ousmane Sonko lu mu ñàkkee liggéeyam en étant inspecteur des impôts et domaines hmm. lolu yépp révolution la hmm. en aucun cas même boko de pacifiquement day am des pertes des dégâts collatéraux yu muy yu muy yu muy engranché day am Basir Diomaye Faye du révolution bob moko duggal kasso est-ce que mu ngi liggéey Ousmane Sonko radié wuñu ko capitaine Touré radié wuñu ko mais révolution moy englobé lolu yëpp révolution bokoy def même pacifiquement day am ñi ñàkkaale sen liguey day am ño xamanté dañuy jaaree gaday day am dañuy jaaraale sey mais pour révolution bi taxaw. c'est ça une révolution hmm. c'est ça une révolution maintenant révolution man fuma fuma Moi, ma d'accordul mooy ñu ne la yow mëno nek candidat 2024, légui nga découragé donc tu n'es pas un révolutionnaire tu n'es pas un révolutionnaire man même ne projet piloter projet un da nga mental d'acier am mm. mentalité bu fort mm. deux aussi da euh, ce qu'on appelle franchement taxaw parce que lu ne ko ah, mm. de de de rien du tout mais lolu, si tu n'as pas un mental fort pour que tu puisses donc euh, euh, jéem a <laughs> mais mais tu es mort politiquement. donc peut-être dans ma japonais que s'il veut pas s'ils ne veulent pas mourir politiquement. c'est hmm. <laughs> un intérêt maintenant, moi, nous garder le flambeau. Hmm. quitte à ce que nous dégueulons. alors.

ni daal di war a sauver li nga xamné ne que moo des projets bu li nga xamné que bu exactement mais enfin euh, su ko analyser de manière concrète moy ki n'a xamné ne que moo Ousmane Sonko aussi son dernier mot euh, si li nga xamné rek modi lenen n'a li nga xamné que moo élection présidentielle 2024 parce que tout le temps mi ngi insister si li nga xamné que victoire bi donc da nga jàpp ne Ousmane Sonko de fa nek si position un faiseur de roi que plutôt un roi. ouais mais les deux tu sais les deux. Euh, ñu bëri évoqué woon nañu ko fii ñu fa ne caaxaan la Ousmane Sonko mën na fal candidat sans candidat sans autant pour mu nekk candidat. Hmm. c'est-à-dire que bu fekkee dafa am. un faiseur de loi. waaye un faiseur de loi de roi comme hmm, on le hmm, dit. gis nga bu fekkee dafa am mbooloo bu ko topp. tey nga faxas candidature am. mais moom mën na comme xale yi lu ñuy wooyee ndigal mun digal xale yi ñu hmm. voté ñu voté wala wa passef hmm. ñu voté kenn parce que il fal na fi ay ñu bëri am ci élection législative yi Ousmane Sonko tax na fii ay ay nit nekk maire da ngay dem sen gox sax ñu ne la maire diw kan moy maire bi amna ñu am té dañu dañoo voté ba ñu proclamé ñuy laaj kan moy sen sen maire hmm. comme le cas de parcelle avec Bassir euh, euh, Jamil Sané comme le cas de de Yoff euh, avec Issa Laye oui le ah, cas de face. oui oui même yemul ci lolu même ay ay Mayekor Diouf Mayekor Diouf de golf Mm. Mais nous avons la dame là, elle va se retrouver un, un, jour mère, mairesse. Mm. mais Mais, mais nous quoi Nous des exemples. Ahmed Aïdara à Guédiouaï, tu crois que sans l'apport de Ousmane Sonko, Ahmed aurait vaincu Benno Yakar à, à, Mais c'est faux. Man Guédiouaï l'a il a dit. Euh, mais moi, mm. heureusement, il l'a reconnu. Mm. Aliou avec les moyens qu'il a mis à Guédiouaï, franchement, les racines Tala, non, mais Mandjap ou Manika Amet Amet Amet pour vaincre vaincre Bernard Bokoyakar. Mais le moment quand Ousmane Sonko est venu à Guédiawaï, qui les campagnes, mais il y avait un rush. Il y avait un rush. Hmm. Il y avait un monde partout, une bande foule. Bon, maintenant, non, ils, attendaient ce moment-là, Ousmane Sonko. Moi, Ahmed Kerogo, Ousmane Sonko, vous mouillez à Guédiawaï, de fois que tu n'y arrives, l'homme, vous n'allez pas j'ai gagné les élections à Guédiawaye je la je veux ay mu je veux je je veux loxo ay koor que ko ko tu es maire de Golf avant les élections mais imaginez mel je ne koy même beaucoup de il peut être un faiseur de a eh, ngi dans loolu. <laughs> voilà ba ñu jàpp ni peut Sonko dafa def peut discrimination. te ñoom ñëpp voilà deux poids deux mesures te ñoom bokkoon ci yeewi yeewi askan wi. je bu mu waxee loolu sax man taxaw naa sax di ko loolu. Hmm. ma ne Ousmane Sonko pourtant mënoon nga mënoon nga def lolu dem jappalé len Saint-Louis ñu ñu ñu ñom tamit ñu gagné sen gox. vraiment mais Alpha mais may dégg ñu hmm? nag Sonko dafa def campagne am. ci hmm? élection euh, locale ak ci si si législative yi. Hmm? def propre campagne am élection locale ak si législative là aussi d'accord nga si. mais propre campagne moy manam maanaam. non non bu fekkee moom c'est-à-dire xamoon ni euh, euh, présidentielle yi. Euh, peut-être euh, parce que nous avons toutes ces. mais mais mais une euh, Ousmane Sonko déclaré qu'il est candidat aux élections maintenant pour législative amé ñu ne ko sa liste dañ annulé liste suppléante. jël. mais Ousmane Sonko bu ci terrain bi. peut-être d'accord. comprendre faut bëgg alors ñu bari japp Ousmane Sonko dafa dafa def campagne déjà si local ak législative wax ak askan wi. de société absence campagne comprendre li nga bëgg wax. ne campagne comme def def même en étant en prison on suppose que def na campagne on ba comprendre naa li nga mm-hmm. bëgg a wax. Mm-hmm. maintenant damay appuyer ci dama ne Ousmane Sonko même bu législative imagine ñu ne ko yow mais égoïsme dafa ko mu sol am ànd ak ñu mu bokkal ci yeewi askan wi campagnaan lan hmm. ba ñu fallu tey sëñ fallu ay waay yéwén nekkul ñëpp ñoo mën a def comme Ousmane ko hmm. tey yow nga ne yow salis bokkul amaana ñoo xamante ne sax dañuy ne ah comme man bokkuma damay jël sama temps boobu dem liggéeyal sama maire yi parce que il est maire de Ziguinchor il pouvait rester à Ziguinchor liggéeyal goxam parce que bokkul ci campagne législative mais mu bàyyi maire bi fële ñoo mbéyum Dakaaru fii di campagnes ay nit pour ñu falu kooku boo ko remercié wulee Barthélemy Diaz encore une fois kooku boo ko remercié wulee yàlla remercié na ko ba pare dama lay wax rek xam politique léeg-léeg mu mu mu nit égoïsme ci politique day am politique léeg bon pour des intérêts politiques <laughs> ñu tax ba nga wax loo xamante ne waroo ko wax mais Bart non Bart sama xarit la Bart Bart sama xarit la mais dama ko bëgg a ne ku la campagneal ba nga falu hmm. même si malheureusement da nga nek di nier ni que du moom moo nga falu alors que sénégalais yépp yëpp xam nañu ko Ousmane Sonko bu amulé apportam bo foofu Barthélemy du falu devant les Aly devant les Louga Abdoulaye Diouf Sar ah, Benno Bokk yakar euh, les moins qu'ils ont mis à Dakar avec les ténors qui étaient là les hmm. Amadou Ba les Mame les autres ils il pouvait même payer payer même qui euh, euh, Barthélemy Diaz mon campagne Yo Barthélemy Diaz nga gagné la ville de Dakar le non Yo gagné la politique ah, Ousmane Sonko taxul nga fallu loolu mën nga ko wax tay bi nga maintenant bu dañuy jël réalité en réalité. Hmm. bu ñu dañuy jël réalité Ousmane Sonko dafa am apport bu mu andi ci sen électorat ak nga nga reconnaître ko wala nga bañ ko hmm. maintenant Ousmane Sonko aujourd'hui il est en prison hmm. normalement ñom lu ñuy ne naar bi ñu fay euh, nar bi xoromam ñom tay dañoo waroon mobiliser jappalé ko même si bu féké mëno ko jappalé pour mu génn euh, mais nga euh, jappalé ko moralement moralement daf koy soxla ñu bañ ko attaquer voilà ñu bañ ko attaquer jappalé ko moralement je crois que c'est ce que j'ai même même koo xamante sax bokkul ci euh, euh, euh, yeewi askan wi Mimi Touré qui qui vient tout fraîchement de quitter Benno Bokk ou bien selon ce qu'elle a dit mais moom taxaw mais taxaw na jàppale Ousmane Sonko alors que tu ay moi si Guinée ni dañ doon sànniante ay xeer mon si diggante ñaari personne yi Mimi Touré on a fait ci meeting bay ne Benno Bokk n'a pas l'agenda de suite Beauté donc Ousmane Sonko bu mes suite Beauté donc na assumé malgré ce qu'elle a dit ne pouvons pas réconcilier avec Ousmane Sonko Ousmane Sonko am ñu mu nekkaloon ci yeewi askan ñu dem bàyyi ko won ko ci pas reconnaître ni que Ousmane Sonko wala apport c'est c'est ça la vie euh, exactement les quatre recommandations bu Ousmane Sonko autour euh, par rapport à ce que élection présidentielle à 2024 moom Ousmane Sonko signe toujours et persiste que ni sans bi il marche vers la victoire